Sénégal salaamaaleykum àddina tey nag dama toog ak daanaan lu mag koo xamante ni kenn la ci coon ne di rakk ci moom koo xamante ni mën naa nag ma ci ci tànkam ci suufam nag ci la màggee ci la yaroo muy Kéba Ké muy euh, Ousmane Ousmane nag nekk nii tey ma doon ko laaj nag tey bis bi nga xamante ni euh, magam bi nga xamante ni mooy coon Balago Seck euh, ni mu yëgee tey xew-xew bi ak bi mu yëgee bi mu taxawee ci bis bi lan la gis ak lan la yëg tey Ousmane. waaye sant yàlla julli ci yonent bi. salaahu alayhi salaam. di sant suñu wayjur di sant Cheikhul Khadim sëñ Muntaxa di siyaare bu baax sama sëriñ bi Cheikh Bass Abdou Khader di siyaare kilifa diine yi kilifa aada yi yëpp yi ci réew mi di nuyu ñi nga xam ni ñëpp ñoo bokk daje fii di leen jaale di jaale senegal ñi nga xam ni ñoo bokk ñàkk ñoom ñun ñàkkuñu sax mais senegal ñoo ñàkk parce que coon daal xam nañ ñi ndekete ñun moomuñu ko ñi bokk woon ak moom sax ci wàllu deret ñooñu ko gën a moom ñoo ñu ko gën a bëgg ñooñu ko waaye nag loo ko bëgg-bëgg loo ko soxla soxla yàlla mi ko bind bind la gën la koo bëgg gën la ko soxla te moo ko jël te kenn du fi des it ndax moom nag xëy na moom bett na Sénégal waaye moom bootul boppam ndax wayam yëpp yàlla yonent bi dund dee muñ ñàkk gore julit macha allah moom ci loolu rek la mës a kon nag comme àdduna du kër ah biñ ko yëgee ñun dañoo delluwaat ci yàlla rek ndax moom bu doon moom la foofu rek la jëm waaw kon ñu di ko jaale ñëpp rek te di ko ñaanal yàlla fa mu gën fa mu nekk nii rek gënal ko. dëgg moom fi mu toll tey ci dem wuji boromam doon loo xamante ni tiis na ñëpp nit ñi ndax dañoo foogoon ni moom heure bii du heure jamono bii mu dem métti lool ci nit ñi loolu noo ma ci mën a wax. non xam dafa am nit ñoo xam ni yàlla sama da dañuy nekk ci xolu nit ñi ba nit ñi dañuy foog ne ñoom waru ñoo faatu quoi ku ne faatu na fi te kullu nafsin saa'iqatul mawt ku ne xam na ni jamono bii ñu nekk nii ñu baax ñëpp daanaka dem nañ jamono moo xam ni ñu nga doon nekkandool ñu bari say xarit say rak say mag say jarbaat say jabar say jëkkër say ndey say baay say maam ngay nekk ñuy dem benn par benn mu leer yow mii sa bés a ngi ñëw kon dañoo war a xool suñu bopp xalaat suñu bopp te dellu ci yàlla rek waaw loolu rek la loolu rek la waaw <laughs> dellu ci yàlla rek dellu ci yàlla rek kon daal kon mën naa wax ni kon fa mu tëdd daal yàlla ko gënal fii mu jógee ngi fi bàyyi yàlla suñu borom yàlla tegg yërmande barke Seydina Mouhamed ñu leen di ñaanal yéen itam suñu borom yàlla yàggal leen fi may leen fan guddoo ko bu wér ba li ngeen na ma def ci liggéey bi suñu eh, fu mu ko bëgg na yóbbu ah. yàlla def ngeen yóbbu ko ci barke Seydina yàlla ah, ah, ko ko yàlla yombalal waari mi nga xam tam mooy doomam nekk fi eh, du taawam waaye kër Baye Cheikh moo dal waali ci kër coon ci njabootam mooy yàlla day yëkkati kenn ñëpp war koo jàppale loolu moom ci waali la dal waaye du ci wéet nag ñun ñoo wéet waaye moom du wéet ndax ay baayam a ngi nii toog moom nag ah, ñun ñun nag ñu mag moo dem te mag moom kenn mënu koo utiwaat mënoo koo mag waaye moom ay baayam am na ay baay yu góor am na ay baay yu jigéen incha allah jàppale waaw ndax jàppale suñu bopp la. jërëjëf dëgg la kàddu yi na ñu ne la ñu ne la ba tey baax na mais il faut ñu am tamit di di rendre hommage nit ki ci li muy dund mu fekke ko loolu dafa baax te coon na plus que ça yàlla nag wàcc ko ndax teral na ko ci lépp ci lépp ba ci nattoom bi nga ko daloon bu mu laata dem. justice blanchir na ko ba ñu xamal ko ne yow innocent nga doo ci dara nattu la bu daloon ci sa kaw bu dégg mu nangu ko nag nga xam ne yàlla bu la naree teral day leeral sa lépp coon yàlla dafa leeral léppam dix jours après mu wuyu ji boromam gis nga lool ah, ah? yàlla rek sant rek waaw <laughs> jërëjëf ok sant ko dund jaal moom dama leen koy delloo parce que Pikine na koy delloo Pikine na koy jaale ñëpp Pikinois de suuf la donc Pikine tey bi day daal di dugg comme ni ko ñëpp dund ne ànd ak naqar mais ànd ak naqar tiis mais ñu sant yàlla bu baax parce que gëm nañu yàlla ay jurit lañu yàlla bu soxlaa rek ñëppay ñàkk donc il faut ñu mënuloo ko loolu di ko ñaanal yàlla foo mu jëm. mu tax ko bu mu jógee suuf te am nañ ci yàqin. amiin am nañ ci yàqin am nañ ci yaakaar. kon vraiment li nga xam ne mooy am solo daal mooy. borom baax la woon. ku mënoon may mbokkam la. ku mënoon ay jàmbur la. maanaam moom. social la social. parce que lu mu am bokk na ko doomu aadama yi. nga jaamu yàlla. jaamam yi lañ koy def. loolu la doon doxal jaamu yàlla ci jaamu yi doon fekk loolu la doon doxal mën nañu am yaakaar ci ne suñu borom dina tasa yërmandeem tasa sallallahu alayhi wa sallam parce que moom la bëggoon booy booy mu réy woowu mu ko woy vraiment kontaan nañu lool ci nit ñi di ñëw di teew ñëpp. 16. yooyu yooyu nañ ko. te ba léegi am nañu taxaw. kon nga xam ne dimension nit ki la. coon multidimensionnel la. yàlla ko def. muy muy muy bibliothèque. waaw mais bibliothèque. lépp lu ñu téere la. donc professeur la. psychologue la. moom lépp la macha allah. jërëjëf kooku mooy sama papa Ablaye. mooy ki nga xamante ne mooy waa mooy coon. kii mooy mooy Cheikh Seck kii mooy àddina kii moom la toon defal léppam moom la Wally def léppam euh, Samba Diène maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di sant yàlla rek di jégalu ñëpp di balu ñëpp àq ndaxte jullit yàlla yi ñëpp jóg nañu jàpp ci naqar bi jàpp ci coono bi ñëpp di ñu ngi leen di masawu daal ñu ngi leen di jégalu di xam ne ki ñu ñàkk àddina la àddinaa ko ñàkk kon nañ koy ñaanal rek. fa mu ne gënoo ko fi mu jógee ci barke Seydina Mohamed yal na ko yàlla jox Seydina Mohamed mu dala ko ci àjjanay firdawsi ya darajay Nabi Moustapha waaw. waaw mais keroog bi nga déggee bis bi bi nga déggee xew-xew bi yow noo ko dundee ak noo am noo doxale ah ni ma ko dundee mooy métti rek ba léegi ba léegi métti rek mais mënuñ ci dara ndax bu doon nit a koy def dinañ ko diggaale moom mais suñu borom mooy borom jaam ñi nit ñi. suñu njàmbaar bàyyiwuñu fi te xamuñu kan la xamuñu kan la kon dañu gën a sant rek di gën a ñaan yàlla rek yàlla sarax bi yàgg suñu loxo ci barke Seydina Mohamed en tout cas monument daanu na ku mag daanu na ñàkk nañu pett nañu ku bare bare bare bare bare bare ku nekkoon suñu kiiraay ku nekkoon suñu sak ku nekkoon sutura ci ñun ëmb suñu lépp nag nee nañu bàyyi lépp yàlla suñu borom rek du ñaan jàmm yàlla na ci jàmm topp yàlla na fi jàmm wuutu di ñaanal ñi fi bàyyi yàlla teg ci loxoom di ñaanal Wally Seck sama doom di ñaanal Lamine taawam di ñaanal seeni rakk ñoom ñëpp yal yàlla teg loxo ci njabootu Thione Seck bi ci barke Seydina Mohamed. <laughs> maa ngi lay fay maa ngi lay fay buur. di la laaj nag tey bis bi nga xamante ne mooy bisu sama papa di sama ndijaay di Thione Ballago Seck di sa mag di sa xarit di sa di sa lépp mën naan tey bi nga ko yëgee noo def. ah xanaa li li li li ñëpp def rek xam nga nag xam nga xam nga coon alhamdulilah rabil nga xamee ne nii yàlla dogal na maanaam euh, def na ko ci xolu jaam ba ñu sax ci lañ ci ci la ñu barkeelu ñun. maanaam moom moom balaago waaw ndax bu loolu moom xëy na sax ñu bari nu ñu xam donc ci la ñuy barkeelu bi ñu ko yëgee mooy day métti lool parce que nag c'est vrai que gëm nañ yàlla te it nag yàlla mooy yàlla boo nangoo. mu def boo nangul mu def te du no du la ne du te léegi nag kon nan la ko jëlee ba pare mu métti lool mu bettuñu aussi apam moo jot ko moom ni mu ko waxee te moom te lu ci bari saa buy wax day wax jëm suñu borom buy way day way lu ci bari ay wayam dañ ci dañ ci gis suñu borom ak lan la cay digal ak lan lay sant ak lam lay wax na la na teg ko fii fii moo yoon bi beneen bi nag am na mais fii moo baax sant rek sant bi nga xam ne yàlla may nañu mag ju mel ni Thione Seck parce que boo gisee bësam bi depuis boobu ba léegi nii xel day dal loolu nag xel woo sax dalay neex parce que da ñëpp ñëpp la ko jooyle nag c'est vrai nag ah sant yàlla sant yàlla bu baax. man Ousmane Seck Ousmane wax na ma léegi ni ma. Eh, coon mën naa wax ni moom léppam yàlla la. di ci yàlla rek lay dellu ay woyam ak yëpp. Ah. mu ni ma coon kenn la ko xamante nii mën naa ni boo ko déggee ay woyam mën ngaa ni téere la. te mu ni tey bi mu demee bàyyi ñu fi mën naa ni kon tey ñun ci moom la ñuy xool ci moom la ñuy roy mu ni ko mel ni mu ni ko waali mun ma waali kat di fi coon taxawan mm. fi la waali taxawan tey coon magul ci famille bi mais waali moom tam ko yàlla di taxaw ci ginnaaw loolu ngay conseil non ma ko wax fii no wax ma la ko fii waali démb rek maag moom euh, démb ñoo nekk démb ci guddi démb ci guddi ñoo nekk li ma koy conseil parce loolu moom <laughs> dëgg la ñun ma yow kenn nga woon ci kër ndax caat nga dégg naa yow kër gi yaa sañ yaa sañoon def loo xamante ni toon sañu ko ma Ablaye naa sañu ko asama bàjjen xaj sek sañu ko kenn sañu ko woon yow rek yaa ko sañoon ci kër gi yaay ñëw defal lu la neex wax lu la neex daal ñu ne coon naan bàyyi leen ko rek bàyyi leen ko rek loolu nu ne woon